cleaning day maanaam ba sub setal bi nga xamante nii kii di président Macky Sall lancé na ko weer wi ñu génn tey jii nag mooy ñaareelu étape bi nga xamante ne nii ñoo koy amal fépp ci Sénégal waaye fii ci njaareem maanaam njaareem desul ginnaaw ndaxte ñii di autorité administrative yi ak politique yi ñoom ñëpp maase nañ def benn say wàcc di jéem a wëyal gis-gisu Macky Sall boobu di cleaning day. Cheikh Diack ñu gën kaa xamee Cheikh Bodi nekk membre mouvement Yeewu Jot na moom jàpp na ne li ñuy def nii Killing Day loolu lu war la bu yàgg ñun ñëpp dañ kaa war a defandoo waaye waruñu kaa def mbir moo xam ne nii dafa mel ni folklore ndaxte li tax mu wax loolu nee nañ bërëb yi nga xamante nii dafa ami poubelle daanako doo gis ñu wàcc fa sa setal ko ñoom nag ñuy mouvement Yeewu Jot na ñu yàgg a yëngatu ci wàllum set setal ñoom nee na daal lii du cleaning day li ñu ko gisee mooy cleaning buzz maanaam fu ñu dem taxaw wane wu def folklore photo wu génn ko ci réseaux sociaux yi rek. dèjà man loolu dama ko jàppee affaire folklore parce que ñun dèjà ñun bi ñuy commencé suñuy challenge wala dèjà bi ñuy commencé suñuy set setal xaaru yoon boobu Macky Sall di lancé di wax ni ne kenn ko nekk setal sa gox. ñun boobu déjà fekkoon nañu ci te ba léegi ñoo ngi ci je me dis que nag loolu su ma nee affaire folklore parce que du genre da ngay xool gars yi milieu yi nga xam ne fa mbalit mi ne sax demuñu fa que da ngay gis koo xam ne que ni ngay romb sa koñ mu fees dell ak mbalit nga romb ko ñëw ci ville bi je me dis que yow image nga bëgg wala boog nit ñi naan waa kii kat jàmbaar la mi ngi def ci dëkk bi dëkk bi bu ñu koy sesetal avant ñu koy sesetal war nañu wut ay pôle wala ay affaire yoo xam ne que ne bu ñu nañ ci def mbalit mi mais tey bu ñu boo xool euh, marché yi nga xam ni dem nañ fa mën nañ ay marché mbudaay marché syndicat parce que fa la moo tax que ni mbudaay fa la ñuy jën foofu jur ñu fa njëkkee dem fekk maire yi fi ci kaw mbalit bi lañ toog di jaay jën te ku ne xam ne jën yi ñuy lekk ñun fa lay jóge kon foofu yoon la set setal ko ñu jógewaat foofu dem ci syndicat syndicat la ñu ñëw dindi leen ko ñun suñu lancé bi waxuñu Sénégal clean mais ñun suñu suñ euh, logo mooy Jurbel na set wecc te ba léegi yaakaar naa ñoo ngi ci mbedd mi du mbalit ñun loolu mooy suñu concept que naan kaas à jeter ci mbedd wala nga naan benn mbuusu ndox sànni ci loolu du yoon ñoom nag naasa nañ ko mais man jàpp ba léegi daal cleaning buzz lañ ci laa ko commencé ko defee parce moo leen jox ndigal leen dem leen ngeen nettoyer seen gox goxaan heureusement nag ñoom bi ñu ñëw ñun fekk nañ ci que ni juróom mën naa ne tey li ci gën a am ni mbalit mi accaparé kon soo mu dee que ñoom seen clinique day mën daal jàppee moo ko loo xam ne que lu mën a parce dama ko jàppee affaire buzz laa ko jàppee quoi ci ñoom mm-hmm. loolu laa ko jàppee Aliou moom de rafetlu na loolu idée bi nga xamante ni Macky Sall moom la lancé muy clinique day waaye tamit ba tax mu jàpp ne képp ku ko jàppee folklore wala nga jàppee ko ay caaxaan loolu ci yow la rek ak sa gis-gis ndaxte setal gi moom teg na ci bëtam te am na njëriñ loolu waaye moo ngi woo tamit njiit yi ñu wutuy poubelle su ko defee taqal daal fiy jeex. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax set dafa baax ci doomu aadama doomu aadama boo setut sa dara du baax ndax lislaam ci boppam dafa digle set kon nag boo nekkee ci réew. dem ba seetlu réew mi setut nga digle nañu nañu setal loolu lu def rafet lu ko rek waaw gis nga àdduna nit ñi dañoo yemut am na ñoo xam ne saa suñ xëy ñu ngi setal waaye am na ñoo xam ne loo leen ci ñaax ñaax ñaax setuñu du ñu mën a set ñiy wax mbumbaay la xëy na seen xalaat nit ku nekk ak xalaatam doo yàlla moo bind doomu aadama ni juróomi baaraam yi wute noonu la doomu aadama wutee ku jàpp ne xumbaay la xumbaay la waaye ku jàpp ne setal gis na ñun gis nañu xam nañu ñu ngi setal fu ñu jaar fu ne boo fa jaaree xam ne seetal nañu kon nag ñuy wax ñooñu xëy na seen xalaat la rek <laughs> àdduna demee noonu fii région de jurubeel da ngay naan sa café sax dox téye ko bëgg foo ko def doo ko am nooy mujj def sànni ko ci suuf buñ ñu bëggoon pour mu set dañuy tegal ay poubelle koñ boo dox gis fa ab su ko defee ah ñu ni ñu jàpp ji waaye dangay naan ba pare bëgg foo ko def doo ko am loolu tam wax dëgg yàlla jafe-jafe la Sukka Jóob nekk benn ndaw fii tamit ci njaarim biñ ko laajee nee na moom dafa yëgul ne ñi nga xamante ni mooy askan wi dañ leen cee boolewul nee na li ñuy def yëpp mooy mbir mi dañ kaa politiser mel ni mbirum politicien la askan wi gisoo leen ñoom ñëpp ñu àndandoo maasa ci di ko def comme dëkk yi nga xamante ni nii ci nañ ko reyee lu mel ni Rwanda ni ñu koy defee nga xam ne couche sociale yëpp ñëpp ay duggandoo ci biir jéem a setal seen ab gox moom daal dafa jàpp ne mbirum puukaru la ak mbirum politique ak wane sa bopp rek. Eh, gisuma euh, implication population bi. donc man li ma mën a jàpp benn yoon mooy euh, proche bi aussi baaxul parce que tey euh, je pense que bu ñuy def euh, set setal pour dëkk bi c'est pour tout le monde donc bu ñu jàppoo bu ñu imprégné population bi wala ñu sensibiliser population bi comme ni mu waree je pense que ne y a une forte mobilisation ci dëkk bi parce que tey boo seetloo rek politique yi rek lañ ko bàyyee kon c'est-à-dire que nit ñi dañuy jàpp ne cleaning day bi c'est pour les politiciens deuxième deuxième chose bi mooy dama jàpp ne sax même ñi ngi koy defee sax même ñi nga xam si day ay politiciens ñi ngi koy defee euh, jàpp mu ne jaar na yoon parce que ki nga xam ne si dafay jël dafay set setal c'est pas pour photo wu wala dem ci benn taxaw benn euh, jalumbali rek photo wu génn ne maa ngi doon participer ci Clean Day bi mais dafa war a nekk une action bi nga xam ne si action citoyenne la nga xam ne si dañuy sentir ne vraiment population bi lu jóg pour bale dëkk bi pour seetatal dëkk bi parce que seetatal dëkk bi ku koy def c'est pour tout le monde c'est pour la population mais gis nga ne population bi kenn participe ci ñi ci ëpp participe ñi ci ëpp ay politiciens la te politiciens yi aussi que boo gisee ne ki nga xam ne day day dem ci Clean Day bi dem sol sol benn mbubbam bu rafet cest à loolu dafay wane ne maanaam du lu nga xam ne si lu sérieux la donc bu il faut mu am lu nga xam ne si vraiment sérieux aussi sensibilis une forte sensibilisation pour population pour ñu mën ko imprégner xam ne li ñuy def c'est pour la population mais pas pour ay politiciens mais pas pour aussi photo pour affaire puukare wala ngistal ndaw yu jigéen ñi di Adja Matel ak Seynabou nga xam ne ay ndongo daara lan ña ngi jàngee fii ci mi ci école yu diggu doom yi ñoom dañu leen yëguñu li nga xamante ne nii mooy cleaning day waaye nag rafetlu nañ idée bi loolu ndaxte nee nañ set moom lu am njëriñ la waaye di ñaan tamit ñi nga xamante ni mooy njiitu dëkk bi ñu wutuy poubelle su ko defee buñ lekkatee walla ñu naan dara ba pare mën a am fu ñu koy sànni ndaxte loolu lu jafe ci dëkk bi la. Ah, bésub setal su ma koo xam de. <laughs> lool de moom neex loolu de moom baax na. setal dëkk bi am set lu baax la. clinique day bi ñuy wax noonu ah maa ngi koy rafetlu bu baax parce que. foog naa ni li dëkk extérieur setee yëpp fii tamit fii tamit dafa war a set waaw man daal kontaan naa bu baax loolu daal moo gën setal daal mooy lépp ah, soo leen bëggee dëkk bi set tamit il faut ngeen indi ay poubelles yooyu tamit ya nga xamante ne doomu aadama yi suñu utiliser ay mbalit bu pare mën nañ ko faa sànni cleaning day bi am na solo amul solo kii nag di responsable politique bu APR di monsieur Ahmed Dieng moom nee na li ci ëpp njariñ mooy lii ay lancement la pour jéem a dugal ci xelu doomu aadama yi ak xelu askan wi ñu xam na ne set ak sell dafa am njëriñ loolu nee nag li nga xamante ni dëgg la ay étape la yu ñu war a dox maanaam ay ponk la bu ñu dugalee loolu seen bopp ba pare nañ jéem wut li nga xamante nii mooy matukaay ci war a dem muy poubelle yi gars yi di laajte ak yeneen yi nga xamante ni moom la ñu war a def ba dëkk bi set wecc li am solo rek mooy mu am mu am une journée dédiée à la propreté je pense que Sénégal moom critique fen ko fekk et ça ne gêne pas au contraire ça motive mais li am solo mooy événement yu mel nii su ko nit ñi déclenché ça permet à l'imprégnation des populations mooy dafay tax nit ñi commencé am culture de propreté maintenant c'est vrai que c'est un processus on l'installe c'est sur une longue durée mais li am solo c'est pas que mu nekk buzz ba ñàkk buzz mais population yi commencé di am culture régulièrement di nettoyer di sel maintenant il y a des trucs à mettre en place notamment les poubelles l'accompagnement et tout mais ça c'est dans le processus maintenant événement yi c' est des événements d' imprégnation c' la euh, euh, fexe ba nit ñi seen bopp ñu am la culture la propreté ça qui est important en fait c' est pas que tey jii dafa am poubelle dafa am nangam aujourd'hui da nekk ci nekk ci combat de communication pour que population yi xam les enjeux loolu moo tax du koy ñu nii pour que nit ñi am culture bi am information bi maintenant au fur et à mesure muy installé wu maintenant on va mettre en place le processus de poubelles yi te accompagnement extra mais en tout état de cause je crois que c'est une bonne chose que le président ait demandé à ce que sénégalais yi commencé di am culture de propreté et ça qui est important. en tout cas cleaning day wax ji bëri na loolu ñii nee nañ folklore la ñii nee nañ lu baax la lépp lu ci mënta am njëriñ xam nañ ne daal set moom amul njëg yaakaar naa ne mooy waral développement war a mën a commencé am ci ab dëkk kon nag ñi nga xamante ni ñooy autorités yi nañ déglu waxu askan wi ñi nga xamante tamit ñooy askan wi nañ déglu appel autorités yi mais dans la main ñu liggéey suñu Sénégal Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xarñaar